naa la wax ci naa la wax ci rëg-rëg rëg-rëg ak bombardier mi nga xamante ni sëñ bi moom moo tax sénégalais kenn nelawatul ndax ñoom ñaar ñëpp ku nekk a ngi wax ni moom mooy ndowaram ndox mi macha allah combat boobu euh, Lamine. waaw sëñ pare na ko ah. na <laughs> <laughs> ko boobu moom. boor. féetee na côté. te damay bañ a yàq ndax ñaar ñi mbër yi. waaw ñoom ñaar kenn ki sama xarit la daf may woo. te moo waxoon lii léegi yàq combat am ko wax. waaye bu jegee wax ko. sëñ bi bu jegee man am na victoire ba pare. billahi wallahi taalaahi combat bu am na victoire ba pare waaye nag ay wax dëgg yàlla nag du ma ko def parce que waa esprit am laa yàq. ndax combat bi des na. ah déet du ma ko def nag mais combat bu moom victoire bi moom pare na moom. victoire bi leer na. ma la boobu bu jegee dinaa leen wax kan la. waaye nag fi mu toll nañ leen bàyyi ñu préparer seen combat ma bañ a yàq seen combat mais combat boobu moom victoire mu am <laughs> lu ñu mënta xaar la. macha allah ndax gis nañu li nga xamante ni yaa ngi ko doon def. boobu ma léegi. Mm-hmm. ci làmb. Mm-hmm. loo ñu ci wax. doy nañu loo ñu mm-hmm. ci wax dañ ciy teg suñu bët. sëñ As